di fas yéene ñëw waxtaanee aussi tamit ki nga xamante ni ki moom la ñuy wax Bougane Gueye Dany Bougane def na yëkkati na ay tuuma yoo xamante ni bi tuuma yu garaaw la jëm ci ki nga xamante ni ki moom la ñuy wax Mansour Faye Bougane wane ni lépp nañ ci turu senegaal luy tolloo quatre-vingt-dix-huit milliards yoo xamante ni bi ñi ngi ko jël yóbbuwuñu alal ja fañ ko war a yóbbu waaye dañ ko dugal ci ab compte privé loolu nag nekk loo xamante ni lu garaaw la bu fekkee ci réew mu normal la ñu ne loolu walla nekk loo xamante ni tey bugaan warutoon a tëdd këram wa ilaa ki mu tuumaal warta tëdd këram parce que daar daar loolu dafa waroon a nekk mbir moo xamante ni bii war nañ koo càmbar ci nu mu gën a gaawee ki nga xamante ni kii moom lañ teg loolu ci ndoddam assemblée nationale waroon na jóg daar daar ñu lijjanti lii nga xamante ni bii moom lañ wax parce que ci ki ñu ko teg ci ndodd ministre la kon ñi nga xamante ni bii tey ñoo yayoo mbir moomu waroon nañu gaaw daar daar lijjanti mbiru ki nga xam ni moom la ñuy wax Mansour Faye te jàpp naa ni bu fekkente ni bi lijjantiwuñu ko bu fekkoonte ni bi lijjanti ko war nañu lijjanti tamit li tax Bougane wax wax ji parce que man jàpp naa ni Bougane li mu wax mesuré na ko natt na ko nekkul wax joo xamante ni bi rek ju muy wax la ju mu jël la di ko sànni noonu ci air bi <coughs> parce que li tax mooy ki nga xamante ni kii moom la jëmale mbir mi te wane ni yor na ay preuve ci li nga xamante ni bii moom la wax gëm naa ni réew mi bu fekkee ne bànqaas yépp a ngi dox wax dëgg fa yàlla jamono juñ toll nii yëf yi war nañu attaqué te Bougane wax na ko ba noppi daal wax ne bu ñu jógul dina génne leneen loo xamante ne bi lu gën a leer nañ génn leeral wa ilaa moom mu leeral donc loolu nag wax dëgg fa yàlla réew mi fi ñu toll nii war nañu càmbar yenn yi bërki démboo njaay gis nañ ci bi nga xamante ne bi mooy xaalisu covid bi tuddoon nañ fi ministre boobu aussi ki nga xam ne moom la ñuy wax Mansour Faye te ba tey yëf yi gisuñu dox gi dox doxin woo xamante ni bii doxin wu gaaw la ba noppi te Mansour Faye bu leen fàtte ni moo fi doon wax journaliste boobu Babacar Fall ba mu koy laaj mu ne ko boo ma waxatee loolu ma porte la plainte te déggaguñu ba tey tuuma yu rëy yi nga xamante ni bii Bougane teg na ko ci ndoddam mu yëkkati benn yoon kàddu nem day plainte wa ilaa mu def acte pour yóbbu ki nga xam ni mooy Bougane ci yoon réew mi dañuy wax ay milliards di wax ay milliards di wax ay milliards ba mu booy ci noppu nit ñi ba sénégalais yi ñu bari jàpp ni milliards sax amul solo lu tax c'est parce que à chaque fois ñi ngi ñuy wax ay milliards ay milliards yoo xamante ni bii luubal nañ mbokk yi réew mi du dem c'est parce que lu tax du dem lenn rek moo tax du dem muy dërëm bi nga xamante ni bii tey moom la buggaan wax nii ne dañ ko leb ci turu senegal bañ koy leb am na fu ñu waxoon a wax ni fa lay jëm bu ñu retrouver xaalis boobu ci ab compte boo xamante ni bii compte privé la loolu moo lay wan ne la kon alal ji fi nga xam ni fa lañ koy séentu ngir mu dem fa dafa mel ni ñi ngi koy dëpp di ko jaarale ci yeneen yoon te loolu nag dafa am ñoo xamante ni bi lii bugaan wax ba mu ko waxee waroon nañ ci taxaw jéem a lijjanti li nga xamante ni bi mooy dërëm boobu nga xamante ni bi alalu Sénégal la lu ñu war a lijjanti la lu ñu war a làqar ci la waaye ba tey bi nga xamante ni bi wax na ko ba nëga dégguñu ci benn yoon kàddu yoo xamante ni bii kenn wax na ko ci